bismillahi rahmaani rahim aouzu billahi min asheytaani rajim laa xawla wala quwata illa billahi aliyul azim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli tey sëlmal si sunu yaakaar moom seydina limaam alayhi salaatu wasalaam ñuy ñaan yàlla mu fayal nu ko lool waaye di nuyu xalif général des Layènes seydina Mouhamadul Makhtar moom Seydina Mandione ñuy ñaan yàlla mu bàyyil ñu ko fi ak njaboot gi yëpp ay rakkam yëpp njabootu Seydina Limaam alayhi salaatu wasalaam fépp fu mën a ne ñu ngi leen di nuyu di leen ziar waaye di nuyu mbokki yoof di nuyu mbokki communauté Layène di ziar ñëpp képp ku nuy seetaan rek ñu ngi lay nuyu di nuyu itam képp koo xamante ne rek egsi nga fi ak sa yónnee ak sa teewaay ak nu mu mën a egsee rek ñu ngi leen di beral nuyoo defe naa man la Seydina Mandione di président association Baye baax na tey ñu doon amal suñu huitième édition wu nettoyage wala désherbage bi ñuy def si cimetière yi jàmmalaay waaye itam di ko def sa cimetière yi Belelaan tey ñu ñëwoon fii muy dimanche ñu ne woon nañu yeesalaat bërëb bi bërëb bii nga xamante ne nag ku fi taxaw rek war nga sa xel war na dellu si ne fépp fu ñuy lépp lu ñuy waajal lépp luy avenir fii lay mujje muy si sëg yi ñuy ñaanal ñu fi tëdd yàlla yokk seeni ay leer gërëm leen barke bàyyi Laay mu baax ma tey ñu amoon mbégte nag ak contentement bu baax a baax si képp kuy doomu aadama du ma wax jullit bi mais doomu aadama laay wax ndax ñëpp jàppale nañu ñëpp wuyu si nañu association Baye Laye baax na defe naa bu ma tuddee vision 129 tudda waa pencum ndakaaru imam pap léegi la fi jógee ak Ahmed Laye ñu def fi ay xéwal yu bëri mayaa la ay garab yoo te ne dañ ko war a reboiser mais di jaajëfal itam xéwal gi ñoo ñu àll matériel yii ñuy liggéeyee waaye di jaajëfal képp rek képp ku si jàpp rek ñu ngi jaajëfal tamit waa Tongoor ndax ren dañu def benn initiative jël bés bi dara jaale ka waa quartier Tongoor comité de gestion bi ñëw nañ fi démb rek yónnee nañ ñu xéewal gu bëri jàpp ci liggéey bi waaye ñëw neen ak seen tànk ñu amuñu seen fay ñu ngi leen di béggee di béggee waa Yoff yëpp defe naa bii di ñëw ñu ngi ko dara jaale itam mooy le 27 dimanche bii di ñëw ñu ngi ko dara jaale comité de gestion Layène defe naa tey lu nu mën a wax rek defe naa gars yi waxal nañ ñu ko association Baye Laye baax na am na nu mbégte si ñëpp defe naa li may fàttali ñëpp rek mooy que ne lii lañu mën a amal sunu communauté ñun ndaw ñi ñu ngi woowaat ñëpp ñu bàyyi xel ne fii mooy këru dëgg ki muy Cambérène muy yëmbal muy dëkki Layeen yëpp waaye dëkki Sénégal dëkk yëpp cimetière yëpp ndaw ñi nañu ko fexe di taxawal di ko di ko darajaal di ko di ko jëmmal waaye di ko désherber chaque après nawet ñun loolu sunu yéene la defe naa bii nag bu ñu si paree incha allah ñu ngi waajal benn euh, peinture boo xamante ne dinañ ko def ci clôture bi ñu defoon fii defe naa miir yi 2017 la ñu ko liggéeyoon 2017 gi ñu ko liggéeyoon ax léegi ñu ngi koy yeesal sax année année bii nag dinañ ko peinture avant appel bi ñu ngi ñaan laayeen bu nekk ñu ngi koy ñaan benn siwo peinture mu ñëw jàppale ñu waaye Soodaan TV itam ñu ngi ñaan laayeen yëpp ñu contribuer si ndax soo daan taxawaayam bi mu am si communauté laayeen Papa lu ba muy amee ko képp ku nekk ci diaspora bi képp ku fu laayeen nekk di liggéey yoon la nga gestu Soodaan TV fi may tëj samay wax nag. si mbégte mi ñu am si Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam defe naa bas bu Serigne laay doon na wax benn wax naan Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bu appel bii ñëw yoon la laayan bu nekk jooy jooy googu muy jooy Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam la wax ne bi muy dimbali communauté bi da doon jooy jooy yooyu mu doon jooy defe naa bàyyi libaas ñang rek junjën na ko ci waxam woo mu naan mu naan Mahdiyu laay fajal na nu mar ki la fajal mar moo la dimbali mu ne Mahdiyu laay fajal nañu mar ba njiin wootee la foore yo war sunub sanga jooy na saaba ya xar rangooñ way baxru raxmaani kon loolu rek doyoon na sëkk si tontu way wax jooju bas bu seen sëriñ Ablaye mi nga xam te ne mu nga féete Cambérène def waaye itam mbégte mi ma am tamit si ñi ñu taxaw vision 129 sànq maa ngi leen di tudd waaye tudduma président bi muy Iba Faye nga xam ne démb ba léegi mu ngi coordonné ak man di xool nan la mbir mi mën a gën a ñoŋe sëriñ bi ñu ngi koy beral sant ak nuyoo moom Iba fay bu see di Thiaw su ma ko tuddee tudde naa képp ku bokk vision 129 groupement central de Layènes ñu ngi wax léegi léegi na egsi nañu ngir indi seen contribution waaye taxawu itam seeni doom defe naa loolu la regroupement des Layènes de Yoff di def ñoom it chaque année dañuy ànd ak ñun kon bu nu gërëmee groupement central gërëm nañu kooru giine ji yëpp képp ku yor association am na association boobu tamit ñoo xam ne ñoom ñooy ànd guddeef bëccëg muy association liggéeyal Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ren affiche yi ñu defar dañ si def erreur nekkuñu si kon ñu ngi leen di beral itam nuyu ak cant waaw defe naa am na nañu mbégte ak contentement bu baax a baax a baax ndax defe naa suñu ay kilifa ci commune ci groupement central ñoo taxaw nii ndax Seydi El Hadj kenn dootu leen ko présenté si si diine yi Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam bi ñu ko xamee ba léegi si lii leen ko xàmmee ñun manoon nañ ñu xam si leneen mais ñoom ñii taxaw kii di Baye Seydi nga xamante ne jàmbaar la ci liggéeyu maamam bu àndeek El pour ñëw indil ñu contribution groupement central defe naa dama naan ñoom bu ñu ko defal woon sax ñëw wax seen jëmm rek doy na sëkk parce que ñoom ñun li ñuy def nii ñoom leen koy defal ndax ñoom ñooy suñu ay kilifa si lii vraiment association Baye Laye baax na si sama tur man mii leen jiite ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan lépp lu nu man ren yàlla na nu man lu ko ëpp mu ngi koy wax léegi sunu wayjur papa jaaju moo waroon a taxaw fii loolu rek doy na ne ñii yëg-yëg bi ñu am si ñun defe naa ñëpp xam nañ ne démb fédération de daayira Layène dañu amoon xew-xew bu mag Cambérène di ñaanal sunu maam Doudou Laye Séni ñoom ñu bàyyi seen i nelaw bàyyi seen lépp ñëw pour def teewaay bi kon lii rek doy na sëkk si seede ne ñii ñoo ñu gën a bëgg sax liggéey bi ñu ngi leen di ñaanal sunu borom mu gën leen daaral gën leen taxaw li ngeen namm ci diine Seydina Limaamu alayhi salaatu wasalaam ñun ñuy seen nekk ci yàlla nañ ko àndandoo réussir que parce que li ni def ni yeb khalifa bi leen koy defal mom mi jité liggéey bi yeen ngeen teewal ko fépp dal. yalla na yalla barkel yalla baxna na lay baxna inshallah na bax allah léppay assalamu alaykum ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di leen baal wax di ñaan yalla mi am njéggal yalla nañu yalla boole baal wax ji du gudd kaddu yi sant la ak ngërëm ci njabot gi nga xam ne ñu ngi taxaw tay taxawé li gën leena xam ci wa bay lay baxna na mu suñu bàjjen maam Kumba jiite ka ànd ak staf bi yëpp ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi leen di gërëm si seen taxawaay ndax lii ñuy def nii tey ñëpp lañ ko defal armeel yi képp ku koy ku ku di julli rek war nga ko bàyyi xel muy armeel yeeg yeneen armeel yu mu mën a doon ndax ñun ñëpp si lii lañuy ñuy mujje loo taaral taaral sa kër fàtte sa kër gi ngay mujje yaa ngi yaa ngi si nax sa bopp yaa ngi si erreur kon su ngeen demé taxaw taxaw li te fas yene dimas jógaat dem ci ye yële nga xamni suñu mbokk ñoo fa teud ngeen fas yene ka defar moy woné ngeen li seigne Ablaye dool al te qur'an saxal ko muy simo bi xablillahi jami'an wala tafarruqu yeen yene ngi dundal loolu ndax yéen wu len ko rek fi mais yéen ngi yaatal te lol la dekk bi soxla moy nek ben boole doole ci mu doon ben te yéen ngi ci loolu ko ñu ngi leen di sante bu baax su turu groupement central El Hadj Omar Looy Jaay jiite ka waaye particulièrement tam turu regroupement Layène de Yoff gi nga xam ne moo fi ne tey yàlla dogal lépp luy association ci yoof moo la fédéré ndax moo fi toogal groupement central te Baye di mi taxaw di coordinateur général du regroupement Layène te loolu lu nit ñi war a xam la regroupement Layène de Yoff kuy yeewoo ci Yoff ngay ab association wala ngay daayira si titalam nga ne kon looy def rek moom nga ko defal kon moom itam si turu regroupement Layène de Yoff ñu leen di sant ñu ngi leen di gërëm di ñaan association yëpp gën a booloo gën a ànd boole force yi liggéey dëkk bi liggéey diine ji mu dem si kanam ndax loolu rek lañ si tool bàyyi laay moo ne woon diine ja xale ya ak mag ñu muus ñu demee ne ba xale yi tey taxaw wane ne ñoom am nañu wàll am nañu wàll si diine ji taxawe ka duñu def lu dul kontaan ñaanal leen yàlla jàppale leen bàyyi bàyyiwuñ benn association nag muy vision 122 bàyyi laay baax na liggéeyal sey euh, Seydina Limamou yëpp association yi bëri na mais li am solo rek ñuy gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp di leen encouragé wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yaa ngeen jëf